ñëpp xam nañu tey pour gouvernement mën a doxal pour président mën a doxal réew faw mu am majorité au niveau de l' assemblée nationale yàlla may ñu nag stabilité boobu depuis 1960 président bu fi falu jox nañ la majorité te ko loolu moo waraloon ñu woo suñu ay responsable woo suñu ay militants waxtaan ak ñoom wax leen enjeu élection yi lii du élection wu benn nit du élection wu sax benn député mais élection wu régime la élection wu réew la stabilité réew mi moom moo tax ñuy votel député yi donc nag euh, loolu la ñu def vraiment responsable yëpp ñaw ñuy suñu ñu gërëm bu baax vraiment góor jigéen mag ak ndaw ci li nga xamante ne mooy mobilisation bi tey li nga xam ne mooy manifestation bi nga xam ne renoncé nañ si ñun dañu koy rafetlu bu baax parce que ñun ay républicain lañ c'est vrai liberté moom ñëpp la ñu ko may waaye liberté boo gis dañu ko encadré rafetlu nañ bu baax position yi ñu mujj jël pour renoncer à ces population et permettre aux populations de vaquer à leur occupation te ñu ngi jublu ci campagne électorale képp koo xamante ne am nga programme nga proposé population yi euh, population yi tànn ñi leen neex donc nag ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax position bu sage boobu donc euh, opposition bi jël tey bokk na ci lii ñu organiser atelier bi pour capacité suñu jox xam-xam argument yi tax suñu ay militants mën a convaincre population lancé nañ aussi benn concept ay volontaire volontaire nekk war a convaincre dix personnes ci biir commune bi yëpp ci 66 quartiers yi ñëpp xam nañu ne élection locale yi ñuy gën c'est vrai Benno Bokk Yaakaar ñàkk nañu ko waaye li ko gën a waral moom mooy dañu dem diviser ci suñu fami mooy famille benn Bokk Yaakaar daanaka amoon nañ six listes tey list yooyu yëpp manqué nañ nekk benn te loolu boo amee gëm nañu ne fii ci Dakar dinañu mën a am une majorité jël les députés de notre département